su ko defee wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim ma di ci tudd baat bu foo te ñaaw te du dëkk moo di yàlla dafa wax yonent bi ni ko bu ñu la mënoon a dëmm dëmm la lekk la benn yoon te dëmm nag amul Seydil Hadj Malick bind na ko nee na ku ni dëmm am na di nga dem safara ndax dëmm amul <coughs> nee na nit du lekk nit ci ndëmm nit mën na lekk nit ci loru mën nga bokk ak nit ndey ak bay ngeen di tukki ba xiif gisatu leen lu ngeen lekk te yéen bokk ndey ak bay sañ nga dagg ci taatu kooka lakk ko lekk mu dagg ci sa taat lakk ko lekk loolu moo am day fekk jàmbur nga di ko dëmm nga moo doonee ku ko wax di dem safara parce que amul et pourtant am na ñu ko daan fegoo pour ni dañu bañ dëmm lekk leen nga gis ñaxas mi nag commencé وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم حقيقة